ku si nekk sa tur sa sant di leen fay waaw di rafetlu seen teewaay malgré que si tiis lañ ne waaw di leen wax ne nag ñu ngi leen di dalal jàmm waaw. xew-xew bu métti te tiis dal seen kaw ndax mën nga dikk ak ñun ci fee yi nga xamee ni moo am ba sa xarit tey jaara fi ñàkk ba kanam muy Mouhamed Diop. Mhm. gannaaw fee ni mu demee mën naa ne tàmbali bi fekke uma ko waaw mais man toog naa benn heure di ko woo mënu ko jot fekk maa ngi doon entraîné. si guddi gi bayal croix rouge sama benn xarit woo ma ne ma Ameth day dafa ne si loxo yoon alkaati yi ñoo ko sonal ñoo ko téye fu mu ne ñu ne mu ngi Dominique loolu ay deux heures trois heures du matin la. avant loolu ndeke jàpp nañ ko dumoo nañ ko dóor nañ ko dóor yi metti wër wër ak moom Pikine technopole fu ne soog ko largué Dominique bi ma ñëwee Dominique fekk fekk ko foofu ñu koy génnee si saal teg ko si puus puus di ko buux amaana ni nga ko doon jagat jagatee sax war maa ñu ko ndax ku sonn noonu nga koy puus ak sa couche lépp ñu ne foofu di werante ak ñoom ndax boobu suñuy xool jug na mënuñu ko seetaan. ñu def ko ni xar jëlaat ko dugal ko seen oto oto oto police boobu di daw moom alir waa ji ñun ñun jàng nañu oto ni ñuy dawalee. waa ji départ sa premier deuxième la départ rek jóg ak sa couche yeeg lépp ñu topp leen ba police Pikine te sax dañ ko bëggoon déposé foofu moom beneen xaritam mi nga xam ne dañ ko dóor ba dam mooy bañam kooku ko tey lañ ko waroon atte dañ ko renvoyé. ñu ne kenn du ko fi jëlee ñuy coow coow coow coow coow ba comme yëg ko wàcc nangul ñu ñu woo ambulance. ñu def ko ambulance. alors euh, yow gis nga ko comme fee sa ñi fi jiitu wax nañ ko maanaam yaram bi ban façon vraitement de traitement moom nga jàpp ni moom lañ ko moom lañ ko violenté ci yaram bi bi nga ko gisee moo xam ba muy dund la wala bi mu ñàkkee ba kanam. man ni ma ko xoolee noonu. Hmm. dama dëgër rek am yaxin sunu borom jàpp ne yàlla moom miracle moo ko moom mënoon na ko sauver par miracle waaye amatuma si woon yaakaar mënu ma ko jooy di ko wax nag mais sama xel ñaaw na ndax yàgg naa gis fas yàlla def na ma fekkee seen nit bu ne mais ma ko xoolee rek sama xel nekkatul si moom mais maa ngi doon xaar miracle sunu borom magam mi nga xam ne weer lañu rawante Ousmane moo ko njëkk jooy foofu yuuxu ne kii dee na waa waa kër gi Ameth jooy nañ ko si guddi googu avant deewam di ñëw waaw ndax boobu boo ko xooloon dafa ma ni rek xar boo rey rek tëral ko foo ko jëmale fa lay jëm yaram bi lépp ne laa ci bàyyi. waaw te boobu ci loxoy police. te boobu ñoom ñu ngi ko téye ba pare di xëccoonteeg ñun di weranteeg ñun di di ñëwoon benn xeen te ñoom ñi nga xam ne ñooñu fi war a nekkal suñu kaaraange. Hmm. buñ demee ba jaaxle war a daw si ñoom ñoom buñ ñuy teg léegi ay coono ak fitna kon ñun fu ñuy dem. alors yan témoignage ngay def si moom parce que ñu bari dañu naan police du ñëw rek dugg sa kër dóor la ba nga ñàkk sa bakkan te xëy na amul dara lu mu yaakaar ci yow wala lu fekk ci yow ban témoignage ngay def si Mouhamed mais aussi yan leeral ngay indi ci loolu. comme bépp sën bu ne si yoon rek daa weex dunk rek waaye weex dunk taxul nga yées dégg nga li ay mbokkam wax ay nitam ñi ñëpp ku si ne am na lu mu sa jëflante ak yow si lu rafet fii kenn soxla fi kenn lam ñii ay morom di yaay seen kanam la juddoo ñu ñàkkuñu fayda ah kii way kilifa kër gi bu ñu fi doon def amaana ñàkk fayda wala naka su noonu du leen xajal si kër gi kër gii la juddoo kër gi gii sa ginnaaw hmm. waaw ñun ñi ñëpp sekkante am ñu lu baax da nga koy yàgg si ngale teg ko bët hmm. ndax day liggéey fan yee rek suñu benn waaye maxu day ngénte ñëw di ko wax si xar hmm. ne li ma war a génne dafa cote xar buy jar trois cent mille mu wàññil ko ko bu juróom fukki junni mais bi muy yóbbu xar bi man nii laa doon def di dem si moom xamul ne maa ñëw si moom mm. a wax ak moom lu moo jënd yam si ñoom ne leen hey laa doon xaar damay ngénte suba daf ma defal réduction cent mille francs moo ma jaay xar gi bu doon moom du moom xar ñu soog ko bàyyi mu dem waaw mm. d'accord alors léegi yan yan leeral nga bëgg indi vraiment ci mbokk yi nga xam ne xëy na tiis la boo xam ne bi ñu ko déggee am nañu métit tey ñu ne ndaw boo xam ne fekk nañ ko këram dóor ko ba mu ñàkk ci bakkanam yaa ngi may wax ni ma daanaka koor bi sax bi ñu ko téewee yow ba léegi deret ji dafay wàcc loolu aussi lan nga ci samay loxo ngi nii xoolal ñun ñu ko téye lii boo xoolee xam ne deret la xoolal lii koo xam ne boobu ba léegi def na si tey une semaine mu ne si loxo yoon ba biñ koy andi nii ko andi càngaayam te teguñu ko si balankaar si kees lañ ko dugal tëj ko fermé ko encastré ko mais teewul deret gee ngi seen suñu kaw suñu ndi yaay ji di Pape Boye moo doon moo yoon bi di topp mm, fi ñu ko wàccee si bunt jumaa ji di raxas ngir bañ ngir bañ trace am kon nga xam ne kon kooku ni ñu ko def moo raw sax euh, euh, mala bu ñuy fees foo laal si yaram dañ dammate yaram bi yëpp mu amee hémorragie interne ba pare ñu bugg ko saxeetoo naan leen dafa def soog dafa dañ ko doon dàq mu def soog dàq xajul fii si kër gi ba muy dénn di def soog fii lépp fii la xewee jël ay xeer yi kii xajul sax si lu kenn xamul di ko dóor ay nit tiim ko di ko dóor yóbbaat ko feneen di ko dóor ay ak ay kuur alors am na sa benn xarit bu doon wax léegi ni dañuy nemmee ko souvent police maanaam policiers yi dañuy ciblé nit xele ni dafay jaay drogue wala yàmbaaw yooyu yóbbu ko ba police di laaj xaalis ay mbokk mag yu demee noonu ndax yooyu mën nga si dëkk ak ñun un dëkk nañ jël sama kanam ma loolu daw ma si dara ragal ma si dara si lañ dëkk ndax moom période boobu biñ koy téye wër bi lu ko gën a andi am na beneen moroomam bu woon oto ko jàppee donc ko laaj ay six cent et quelques mille dégg naa ba kooku juróom fukki la mujjee ak ñoom te yooyu ñun wax nañ ko commissaire ba mu dégg ko mais kay moom biñ ñëw fekk si moom lu ñu bëggoon xam nañ ne fekk ñu si ndax koo fekk si këram mu wax rek mu wax am na lay tontu rek nga xam ñoom jotoon nañu ñam dara si injustice